waaw ah, wolof euh, laa bëggoon wax euh, dégg nga Thioune également li wax mais lu wax aussi daf ko teg ci ay firnde daf ko teg ci ay fait gis nañu également audience boo xam ne doxoon na ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko ñu dem Palais Safanto te pourtant ñu bëri dañu jàppoon war nañu euh, toog gisante et cetera wax également ci acteurs politiques yi on le voit à fois maintenant est ce dañu war a dem ak émotionnel wala est dañuy war a wax ak ñaari Sénégalais kii fii la far kee warta far ci vidéo Jibi Gueye ak Antoine Félix Diome di ay mbokk bokk dëkk xombal ni ndey Ousmane Sonko dëkkee xombal ñu am ay relation yu rafet mhm. ñu waroon a am ay relation yu rafet ci ay maam ba nëgëni ñu daje ci dëj nit baayam de ñu ree ba tàqaajoo kottante c'est l'émotion non est-ce que foofu euh, du ñu wax ŋàññ Jibi Ndiaye ci côté émotion moom parce que dafa war a ñëw ci dëj la nekk wala nekkul ci dëj mhm. benn émotion ba tey ban fonction la Djiby Gueye Ndiaye occupé ci l'état tey ba nga naan moo géré pour protocole premier ministre waxuma Ousmane Sonko de premier ministre laa wax voilà. dégg loolu nga da ngay moo géré porte moo protocole. premier ministre voilà moo ko nommé de. non non dama ne waxuma ci li soxal Pastef. non ci l'état primature. sëriñ bi non damay laaj. sëriñ bi boobu laaj la. yow xanaa liiroo kon yow kon yow. waaw non damay laaj la lan la laa ah, ngi ñëw wax l'état l'état du affaire. mais premier ministre kay bon nga mën nga jiite état. waaw non dama la président Ousmane Sonko. premier ministre Ousmane Sonko loolu laa nangu. Ousmane Sonko moo ko signé décret ki arrêté. cuun su ma waxee ba pare da may déglu. kon kon bul wax amul état. déedéet amul état cuun cuun cuun cuun cuun. non sa non cuun cuun la permettre. non li nga wax moo leer. non non mën na leer non non non non non non non non non non non non non dama ne la. kon kon kay dama ne du loolu yaa ngi wax ne état. wax. kon reposer sa question. la ñuy wax mooy porte ci état la ñuy wax. waaw dem ci dëj am émotion reetaan. di foofu tamit am nga problème il n'est pas allé au nom de l'état. non non dama ne la waxuma. il est allé en tant que citoyen en tant que citoyen administré ak proche. li nga li la kii def sànq dëkkandoo kii la li la kii def sànq bul ma ko def. waaw ah, mais mais li ngay wax c'est grand. non non non non da nga may bàyyi ba ma daaneel parce que lii mooy seen problème. man soo ko aussi soo ko interpellé bi jeex na gis nga Bamba Bamba interpellation bi dafa jeex damay développé man bu ma bëggee développé damay développé. Euh, émission bi nu ma bëgg mu mel lay mel. ah non non teg ci yoon rek non soit dañuy teg ci yoon dama ne yàlla xam na ne boo ko tegul ci yoon émission bi day yàqu soit day tege ci yoon rek voilà soit sama sama xalaat bi muy xalaatam bàyyi ma ko wax bi ko Barth di dagg néew ma ne Barth waroo ko dagg dañoo war a taxaw kenn ku nekk non non non interpellation ba jeex na tamit tuun dafa jeex tàkk bi ma la waxee kay ñu war a préciser question base yi base yi du dañuy continuer loolu xam nga man warul nangu voilà gis nga man Euh, débat dama koy jël très sérieux aw ma ci ndey aw ma ci bàyyi. waaw mu dem mu dem ça très du question man maay man lay neex ma continuer. parce que doo ñàkk lekk sa débat ba mu yàqu may taxaw di ko tegaat ci ci cadre nga naan ma nangam ak nangam. chaque fois noonu lay demee. waaw loolu sa gis-gis mooy waxi dof. waaw loolu sa gis-gis la sa gis-gis la man mi ko si laaj bi yi tontoo allez-y. ça allez-y, vous la parole. ok euh, ñu ñu kon ne ci ci li nga xam ne moo di euh, wax waxtaan wi élément baax. non xam nga euh, xam nga non non non comme que wax la rek noppi suñu pare comme que wax la damay wax. waaw kon allez-y. voilà man maay wax. waaw allez-y voilà. gis nga du dañu wax problème mu émotion la wax Bart élément Bart koo xam ne yow moom moo jiite protocole premier ministre dem xombal ci dëj ci dëj ak dëj nga dem émotion jàpp la. bon parce que tamit simple nga fa dem parce que say mbokk lañ mais dem nga foofu homme d'état bi ñuy wax émotion jàpp la nga ree ba tàqaajoo bis bu nekkoon Antoine Diome moo nekk ci pouvoir bi scène bi du demee nii. Hmm. waaw du demee nii boo jëlee mbir mi ñaar kan moo ci gañe c'est Antoine. Hmm, hmm. gis nga bu fekkee ay nit. Mhm. dañu ànd ak non politiquement laay wax ak li nit ñi di gis nii ak lu mën a am mooy bu amee kenn ku gagné Antoine Diome moo ci gagné. nu mu gagné. boo ma dégloo rek ma wax ni mu gañee mooy yaa ngi ni tey ay ci biir Pastef on sait de Pastef wala ñoom ci boppam am na ñoo xam ne lii neexul seen xol Pastef dafa am na mu ñëkk excès ci pouvoir bokkul ak tey par exemple tey ñu ne la PDS ni ko APR gañee wala ñu ne la même PS sax ni mu gañee ab ab Abdoulaye ni mu gañee Abdou juu am na wan na lu masoon a jaar seen diggante mais yàgg na mais masta yegg fii problème masul yegg si fii Antoine Diome surtout li mu ci symboliser Macky Sall lépp mais ku Macky Sall bëgg a masa liquider commençant par Karim Wade moom la ñëw jëw def ko euh, euh, sipité yi procureur euh, créé yi mu def ay commission de rabatoire di kàcci kàccam ba lépp am fii gis nañ ci Karim Wade ji su ngeen joxe dem nañ xool après gisuñ fa loolu beneen la moom la ñu jëlaat en même temps bëggoon ak cac lu mat deux mille cinq cent milliards Sénégal mënoon ko am bu yée yéesee ba yées waroon a nekk mille cinq cent milliards wala mille milliards waree fa yaa xam ci loo xam ne Sénégal daf ko séq ak benn entreprise ArcelorMittal bi ñëwee war a dugal xaalis boobu au lieu Sénégal laaj loolu wala sax lu tane Sénégal soixante quinze milliards la laaj diggante maanaam ku la tooñ ñu laaj na la kii moo la tooñ ñu lay dàmpee daal la nga wane Antoine loxo mu ngi si. maa ngi ñëw man kay dinaa ko leeral. Mhm. ñu ne la lan lañ lay dàmpe yow état Sénégal. Wade ne deux mille cinq cent milliards far nguur gi régime bi changé Macky Sall la ñëw xanaa boo même boo jëlu deux mille cinq cent milliards topp kooku te kooku daf la tardel kooku ki nga nangoo euh, mbir mi jox ko ko kooku bi mu la yóbboo ci yoon deux cent cinquante milliards nga ko nga ko dàmpe muy Kumba bi South kooku ki nga jox ko mitaal mitaal bi mu la dóoree nga dem yow ñu laaj ñu laaj la nga laaj deux mille cinq cent milliards xanaa boo demee mënta ñàkk sax la nga ñàkkoon muy deux mille euh, deux cent cinquante milliards nga laaj ko soixante quinze milliards la mag Sall laaj li ci doy mooy bi ñu ñëwee di ko dugal ci keesu état il faut agence judiciaire de l' état euh, kan la ay sa Aïssa ay sa bañ ne lii du intérêt Sénégal ñu tebbi ko tabbu Antoine benn ñu pare ñëw war téyeti Khalifa Sall en tant que agent judiciaire de l'État mu ñëwati def jëkkoy caay-caayam ñu ñëwaat ci Ousmane Sonko ci li fi am fen yi mu fen fii ci dëkk bi yu bari naan ay café Touba la ñuy wooyee lii te dama dem bay metre en mal entre tarixa murid ak ay njabootam. mais ay cocktail Molotov aussi amoon na fi de. waaw non cocktail Molotov comme ni muy amee fépp. dama ne la cocktail Molotov depuis boobu ay fen la mise en scène la bis boobu. ma ne moom moo ñëw. jàkk nit ñi ñu wax ne ñoo ñàkk seen bakkan yow da leen a xam jaale ji waaye dama ne woo waay fa la ñu dëkk xam nga man bàyyi yu xale bu ñu taxaw di ko témoin loo mu ne man la am ku ñëw di témoin ñu tàmbali muy wax wolof yi leer ba mu yàgg ne déggatul wolof am góor goo xam ne nee nañ 57 ans la xam nga 67 ans ñu ne moom moo jógee ci fenêtre bi ba daanu ci suuf ñu ne yóbbu nañ ko hôpital sa ay naataango ñoom Sunugal 24 dem fa di laaj médecin bi euh, euh, docteur ku jigéen di ko laaj ne ko ndax indi nañ ko fi mu ne waaw indi mais dañ ko xool rek bi ñu ko xoolee après jox ko ay garab mu dem xanaa yow mag mu am 67 ans tiit psychose boobu la dal nga daal di plongé ci fenêtre euh, tata. ba daanu xanaa lu mu dee dee dee yow xanaa yow war nga fa mën a toog ci hôpital bi sax ak ni mag mel nga taxaw di wax loolu. beneen bi mooy li mu taxaw xanaa yow bu dee loolu sapeur mooy ñëw am góor gu taxaw nee na. nit ñi dañoo tàkk bay daggatoo bi sàppoor ñëwee maa leen abal ay saako ñuy ratu nit ñi di leen ci def góor gi laax la sant xaw ma nan laax lii ci ci biis boobu la am bam mu yàgg ñu ne ko xanaa yow lu tax mu mujj naan non non bi gars yi ñëwee dañoo mujj teg périmètre te nee na moom moo leen abal nga xam ne ñi ñu jël di leen defloo mise en scène la chauffeur lui-même taxaw naan waa ji téye flamme bi yow ku yor flamme nga taxaw nga xam ne kii ba nga ràññee ne flamme la yor wala nangam ak jamono yooyu ëmët yi am. xanaa la ngay def même boo doon wàcc di may nit da ngay samp daal di nas sa deuxième continuer dem mais da ngaa taxaw receveur bi ñëw naan 30 000 francs génne kii ba mu yàgg mu ne 300 000 ba mu yàgg ne 30 mille francs doo xam leen loo ci jàpp suñ bëggoon mu leer mu leer bis bi encore une fois mise en scène la ay kàcc la. ok léegi pour dire quoi doit des explications. ñu ñëw taxawati benn micro moo fa nekk. fan nga gis euh, micro bi ban étiquette moo fa nekk la police. la police comme ni nga xamee ne noonu lañ defe mise en scène ay nit ñëw taxaw naan la fii lañ jëm loolu yëpp Antoine am lu mu ko représenté ci projet bi am ñu ñu faat ci magistère am ci lu mu jiite ay nit ñu sosal leen fi loolu yëpp di naqari xolu pa maanaam ci biir Guèye dafa am benn côté bu dee émission ngay wax man wax naa leen kon moom il est émotif mais c'est très normal patriote la plupart des Sénégalais de waaw non bien sûr bien sûr mais émotion boobu non émotion léegi comme comme on émotif émotion bi ñuy jàpp ci naqar moo ëpp doole fuuf bi ñuy mën a boole ci bànneex parce que problème loolu dafa yàggoon ay nit Djibi Gueye nekkul n'importe qui ci projet bi dafa am lu muy jëmmal ku ko gis dangay ngay gis bàyyi ñi nijaay ñi ak yu demee noonu kon suñ ko seetaanee ku mel ni Antoine nga xam ne li mu représenté ci projet bi yëpp mooy ñi doon réprimer ñi doon yàq ñi doon sosal ñi doon kàccal loolu la représenté tey boo sa ki yëg ma man pour man ay mbokk lañ mënuñ ko tàqale mais mbokk googu leen boole tey su fekkoon ne loolu dëgg la comme moom ni mu ko defee Antoine Diome du ma sa jël loxo bu tànk di ko teg gis nga li Ousmane ko waxoon ci baaxum grand baaxum yaayam sax bi muy feebar ci nang yooyu relation ku ko am ak nit ba pare di ko sañ a def yu mel nii. mais président Macky Sall Ousmane Sonko nekk lay wax. non non non danaa ñëw danaa ñëw danaa ñëw foofu danaa ñëw foofu. non danaa ñëw foofu non bul tiital danaa ñëw foofu. danaa ñëw ci général Moussa Fall. dama ne li nga xam ne moom la fi gars yi def ci kaw Ousmane Sonko. da ngay xaw a wàcc tuuti saa kii parce que da nga xaw a yéeg quoi da ngay xaw a kii nii. jar na yéeg voilà dafa yéeg jar yéeg. non non jar na yéeg de non non non non garaaw garaaw garaaw loolu loolu sama jëmm la ma bàyyi ba débat bi xam naa leen bëgg voilà gis nga maanaam li nga xam ne tey moom moo relation yi ñu am bokk ko ak Antoine yoon ba pare nit kooku man laa def lu bon lee ba pare defaat ngeen ni safaanoo yi kooku boo dee bu dëmm amoon gi giñ ko dëmm man gëw ma dëmm nag man gëw ma dëmm de damaa gëm ne dëmm amul ku ma xam-xam ne amul mais dama ne la bu doon am mooy giñ ko dëmm parce que loolu mooy yëfi dëmm li ñuy expliqué ci dëmm moom rek loolu la mooy dëmm ray la jaare parce que problème mooy dafa am loo xam ne mënul nekk gis nga yaa ñëw ci Macky Sall wala nag l'état loolu mhm. typiquement l'état mhm. moo taxaw mhm. muy président Diomaye boo ñëwee ci amnistie bi wax nga ko sànq amnistie kan moo ko def c'est le président Macky Sall Macky est-ce que Ousmane Sonko da koo deflu xam nga def lu ko ah, non non non loolu koy leer na loolu moo leer demandé wu ko non problème bi mooy ñëpp xam nañu kan la amnistie bi enrangé mm. parce que ñun amuñ lu ñuy nëbbu defuñu lu bon lan nga ñu mën a waxal ay cocktail molotov cocktail molotov dafa am fépp am na Sénégal ay yoon yoon ci reeñu Macky Sall képp le cocktail molotov bëgg a nekk lu yem ak affaire terroriste te du dëgg maanaam jël toog cocktail molotov andi ko ba ci bomb bu ñuy tàkk cocktail molotov pour anéantir nit ki la. pour léegi gis nañ ko fépp France gi am na fa ak feneen ak feneen ak feneen te taxul kenn taxé leen de terroriste. bu demoon bay nekk terroriste am nga leneen looy def lu gën a taxaw cocktail molotov. léegi boo defee sa amnistie pour amnistier sa bopp dem voté ko ensemble heureusement que waa parce même man bu doon benn crime de sang yi dindi nañ ko ci sax bu ko Pastef voté d'accord wax naa ko fii waxaat ko mais kan moo ko voté ak ñan ñoo ko voté Macky Sall la pour bañ ñu tuddati yenn mbir yi te man dama bokk ci ñuy œuvrer à ce loolu ñu dindiwaat ba mu kii te yomb na dindi te yaakaar boo ko doon dindi tey sénégalais yi danañ ci d'accord ensemble wu référendum fu ñu mën a jaar. lii mooy li nga xam ne maanaam moom moo ci nekk léegi boo waxee président Diomaye président sortant nga xam ne yow da nga am intérêt pour euh, teel a familiariser wu ak lee am na lu ngeen désamorcer parce que nit ki moo taxaw wax fii ne si les politiques ne sont pas capables d'entendre sur l'essentiel d'autres forces organisées le le feront à leur place te yi fi mujj xew yi am na fu lay yóbbu. maanaam li mujj xew nii bañ koy alimenté am na fu ñu teey sa xel sa xel day ñaaw jëm ci loolu mooy kon Macky Sall li mu naroon a def man damaa jàpp ne mooy dem def maanaam ci sama xel mu gàtt li tax muy wax loolu mooy def benn faux coup d'état comme li ñu li gars yi di njortal waa Gabon néew mu dëgg la de mooy nit ñëw jàpp ko ne ko ciix ne ko bul yàq réew mi da nga waroon organiser kii yaa ñu indi fii waa léegi nag dem leen toog ñu yor dëkk bi quelque temps loolu la doon waaj. xaw ma kenn muus laa piqué. Mhm. ba mu dellu siwaat wala nangam na mais en tout cas yoo baax na ci ñun mooy ba mu ñëwaat à la normale te loolu dara réglé wu ko lu may vidéo Ousmane Sonko yi nga xam ne moo dem nekk ba nga xam ne loolu moo ñu indiwaat maanaam Jibi Gueye Ndiaye. Mhm. moo war a xam ne. kon da war taxaw di fóonante wala non non dëj la dëj rek loolu dëj ku dee. maanaam nga mel da ngeen nekk ci génte wala takk nekkuñ ci takk. dèjà loolu rek rafetul. maanaam déjà loolu moom mu def rek. Mhm. le fait loolu di dëj. rafetul mais li ñu devoir nag euh, maanaam nañu séparer loo xam ne mbirum justice la ak mbirum doomu aadama. non non man man loolu man loolu dama d'accord. maanaam mbirum justice. Mhm. ak mbirum doomu bokkul Djiby Gueye Ndiaye du justice. justice des na tuuti. day taxaw comme ni ko Thioune waxee loolu day am. man dama gëm ne loolu moom man li ma ci ñor mooy kiy jëmm ji ki incarné projet bi. Mhm. xam nga nag am na yeneen yoo xam ne sax waxuñ ko lu gën a garaaw. muy lan am na ci ñoo xam ne tey ñu ngi saafonte ak anciens délinquants yi ñu jàpp ne mën nañ ci seen dossier dara mënuñ ci gat man mii képp nit jaar na ci man yaakaar ne mën naa ci nàngam ak nàngam dara dafa antuut am na ñoo xam ne ñu ngi lëkkalook ñoom di encaisser ci ñoo xam loolu nañ ko bàyyi bis am na ci loo xam ne bis bu toqee ci ci ci nopp Ousmane sonk fii lay xëy tàggook nit ñu yenn nit yi ñuy taxaw naan non gor euh, moom de waroon naa kii xool ci nangam nangam te bu boobaa nit ñi duñ xam ne sëb la la ko bënn nga ca biir na gars yi doylu xam nga koo xam ne yaa ngi nekkoon 2017 amu demee prix forest mhm. amoo dara ñu raje la ngay góor góor lu yàgg sa waa parti bay gën a sakkan nit ñi di cotiser di la jox ba ngeen yegg si fii yegg si téye le pouvoir yàkkam jaru ko ku amul post tey mën nga koo am ëllëg boo tegee sa dara yàlla dana ci def sa wërsëg mais dem di gisanteeg ay directeur sàngam ak pour mu nuyu président wala pour mu xamante xamanteeg premier te wóor na leen du dëgg mais fexeel sax même kooku sax même boo koy fexe sax bëgg na pour mu am yaakaar. ñaata nit la ñuy woo pour rien que rek ne la fexeel ma toog ak diw wala ma gisanteeg nangam ak ministre te mënuñ ci dara gis nga bis bu fi Ousmane Sonko jëlee nit tàggoog moom na nit ñi comprendre ne pratique yooyu la. am na ci foo xam ne du ma fa yegg xaayaan. Hmm. dégg see am na ñuy encaissé jamono bii. ñu bokk ci nguur gi di encaissé ñoo de ñoo xam ne bokkuñ ci nguur nguur gi la nguur gi. bu hmm. fekkee ne ñi nga xam ne ay ñi dëkk la dama ne man daal de wax ma la jege ñaale Ousmane Sow. am na ci daal ñoo xam ne am nañ tur. waaw tey ñi ngi neexoog yenn ay ACDC ak. wala ay naag defe ne mën nañ ci dara te xam nañ ne mënuñ ci tus. lii c'est bét bétonné et blindé. réew mi dañ koy liggéey. li may dànkaaf ñu gis ñu tàggoog kenn ay nit naan waaw moom de ni mu ko jegee wala wala nangam ak nangam nañu doylu la nga daan la bëy daan dunde mm-hmm. màgg ba am sikkim mën na caa mooy ba xëy dee dara jaru fi lii réew mi dafa tollu diggante nañu seere seen diir kenn ku nekk muñ alal ak ak ak ak bànneex bi ngay yàkkamti ñun ñëpp ko bëgg mais bu buñ ne tey bu réew mi doxee ñëpp gis seen bopp mais gis ne sawaay ab milliardaire la nga dem jege ko ku nekk di ko kii hmm. nañu arrêté am na fu ñuy bañ a yegg nag maanaam damaa bokk léegi moo tax mais <laughs> bu doon jamono yi ma bokkut maanaam bu doon quinze jours ci ginnaaw wala vingt jours